laa ilaaha illallah laa laa ilaaha laa laa ilaaha laa laa ilaaha illallah kenn du maam Seex Ibra Faal kenn du maam Seex Ibra Faal yaa nu wan woolo laa ilaaha laa ilaaha laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha ilalau turu yàlla bi am na solo lool ni nga ko ubbee am na solo neex na kon ñu ngi ñaan maanaam yàlla wéral baat bi maanaam fi nga bëgg a ci turu yàlla wi yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defal ci barkeb sëriñ maam Cheikh Fall ibnu sëriñ Ablaye Fall Ndar ibnu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp baawil muridin di santat bu baakha a baax rek manam di soññewaat bis bi rek maanaam di ko wat ñep ndax bis bi dañ ko jël fété ko muy bisub gox bi doon bisub murid yep doon bisub wa daara ji mu melne taxaway bi wa daara je koy taxaw waaye mbirum ñep kon ñong ki soñu ñep di nga xamane biñ ci nekkeek maanaam ren ji laam juroom ñetti at kon lolu du lo ndaw biñ ko tambale ak legi yagna kon dañuy ñaan yàlla rek suñ boroom jëmale ko ca kaw ca kanam ba maanaam lépp daal fuñ ci toll rek maanaam bis bu ñëw rek dàq ba ca des. bis de moom fa laaw rek waaw sëñ Touba moom amul tànki kat ginnaaw tànki kanam rek laa am moom jëf jël la rek lu waay jëf yaa ko moom war na sëriñ Touba. ma jox la suñ jëwrin yaa da ba mi ngi nii ñu ziyaare ko mu wax lim xam si bis bi daal. bismillah salaamaaleykum. xanaa wax ji de moom daanaka raa dañuy jéem rek waaye dañuy boole sant ak ngërëm rek di sant sëñ Tuubaa bu baax di jaaral maam Cheikh Ibrahima Fall di siyaar waa daayira bi yëpp di leen jàmm ñaan yàlla yàlla def jàmm yàlla nañu ko commencé bisimilah ko ci alhamdulilah rabbi alamina ndax bis moom boo ko dee woote eh, jàpp nga day baax am am solo lool waaye pastéef ga da ci am solo ndax looy woote lu ne rek boo dëggalee ah bis boo day gën a day gën a yokk Eh, ko wootee ci mi sëñ bi nag boo yokkul xool sa bopp yokk ñàkk ngaa yokk ca doon waaye du sëñ bi sëñ bi moom lépp a matale na kon nañ góorgóorlu bu baax di ñaan yàlla yàlla jàppale ci ñu eh, def ko ni ko sëñ bi bëggee eh, wooteeg cant daal mooy def ko ko sëñ bi bëggee li sëñ bi bëgg lépp ñu nekk ci lam gàntal lépp ñu daw loolu rek mooy cant kon yàlla neen jàppale ñu ngi gërëm góor yàlla yi di gërëm soxna yi ñëpp daal yàlla yàlla doole jàppale doon ñoo dimbali ba lépp luñ ci yéene rek ñu mat ko te bu ngooyee rek na ñëpp génn ñu bokk teew rek rafetal ko bu baax a baax sante ko sëñ bu baax rek jaajëf ñu ngi sante ñëpp di ñaal ñëpp jaam barke borom Tuubaa ak maam Seera Fall jaajëf wàllum Serigne Touba mom lu ci way waxit lu ci way defit sa bop ko ko defal waaw te dama ñew ngeen may yaatal boole ma seen bop jël seen lepp ba ak mom may def su la neexon du am de yeen dal, dama leen di bàyyi ak sëñ Touba rek yalla leen yalla fay bis bi nak mom bis bu yaatu la te mu ngi ni rafet na machallah dara manqué wu fi yalla na suñu yene rek motale ko ba ci kanam inshallah rabbi nañu yéene dem di ci taxawal ay giléem ak i nag di ko xaddaaw fii di sant Serigne Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Mouridine loolu képp lañ ci jublu ngërëmal sëriñ tubaa ngërëmal Cheikh Ibrahima Fall képp lañ ciy sàkku maanaam nag di ñaanal suñu kilifa yi nga xamante ni ñoom lañu suñu borom booleel fii ci gox bi maanaam doon suñuy jëwriñ di ñu tette ci yoon wi ba fii ñu toll tey jii di ci njëkk sëriñ maam Cheikh Fall. ibnu Serigne Ablaye Fall Ndar ibnu di ci tek Cheikh Modou Ablaye Fall ibnu Serigne Modou Mam Fall mu Mam salou Fall Serigne Massamba Mbacke suñu yaakar tey ak ëllëg manam ñu ko ci sante bu baax a baax ndax dañ ko tuddé bis bi waye bis bi da ko fee da fekk mu genn dem Màkka manam momit manam lolu ñu leen koy biral bu baax a baax manam diko ñaanal Mbacke mu yàgg fi lolu te wër ba lim bëgg liggéeyal mamam yalla suñu borom def lepp matalé ko lépp saafarawu maam na mu ko bëggee suñ borom defalee ko noonu ci barkeb Cheikh Abdou Dia Mbacke borom Dioli di santaat bu baax a baax tey jéggaluwaat di leen xamal ne maanaam murit yaa ngi ñëw liggéey baa ngi nii gis nga leen Baye Fall ñëpp a ngi ci liggéey bi maanaam fi mu toll nii bis bi Baye Fall yëpp la ñor képp ku nekk ci gox bi ak fu waay mën a nekk di safoo suñ Bamba ak Seera Fall ne ci gox bi yaa ngi jël bis bi def ko ni sa bis kon loolu dara maanaam euh, sedd na xol. kon suñu xol sedd na ci loolu bu baax dañ cee nekk nii rek waaye mbirum ñëpp ndax lépp ñëpp kat lu ne ku ne dacee cee ne ñaareel nag dañoo xawut a mën a wax waaye daal suñu xol sedd na bu baax a baax a baax Baay Faal nag moom wax dëgg yàlla bopp ba tey kenn noppali ko wut wàccaay gi bopp ba tey ñëpp ngi ci mënuñoo lim ndax ñëpp dañoo bari te it Baay Faal yaa ngi jàpp fépp wax dëgg yàlla fenn manqué wut lépp a ngi mat. lepp a ngi neex kon yalla nañ ko yàgg a ci dole mam Cheikh Ibrahima Fall Lamp. aw tiant de mom. Serigne bee ko diglé manam ken amul tiant ko dul Serigne Touba ak Cheikh Fall comme ku yalla dimbali ba tawfiq la ngay sant war nga sant sa borom ndax ku santul duñ la dole kon bu nu yàlla xéwalee ñu dem bay sant yalla nañu ko sun borom nangul manam ñu koy def ay at at at ba dem ba suñu dom di def ci barke sid ibrahim Fall di sant nak tout tànk yi nga xamni ñoy def li ndax euh, dañoo xol ci seen mag rek motax ñu dem ba def li ndax ci seen mag lañ ko kon buñ demee way def li yalla nako suñu borom def ba ñoomit seen doom diko def barke Cheikh Fall euh, waxale na ñun ñep ndax moy suñu jëwriñ kon ñoo ngi tuubaat bu baax di jégaluwaat bu baax a baax jaagee ñëf barke maam Cheikh Fall jox jëwriñ bay fallo momit mu sanni ci ay cadeau bu ko defee maanaam ñu delluwaat ci tool yi santu maam Cheikh di sant bu baax di ñaan yàlla saa su ne Serigne Touba dañuy dimbali ñu koy man ci zaahir ak ci baatin di sant suñu borom kër gi yi nga xamante ne mooy jëwriñ Lamine Ndoye di ko sant bu baax a baax a baax a baax di ñëw ci cant gi sàkku fi ngërëmu Serigne Touba di ñaan yàlla lépp lu ñu man ren bu déwénee ñu gën koo mën ci jëmmi maam Cheikh Ibrahima Fall ngir jëmmi Serigne Touba ñu ngi sant bu wér wér wér wér. di jégalu kàddu yi nag. waaw gannaaw jëriñ ñi wax nañ ba noppi moom daanaka amuñu leen luñ ciy teg lu gën a sant rek waaw gën a sant bu baax a baax a baax a baax a baax ñu ngi gën a sant bu baax nag sant nañ bu baax nag ñu ñaan yàlla dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin ci barke sëñ Tuubaa Cheikh la waa ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp nag waaw ci barke Cheikh Rafal balaa déwén nag suñu borom jàppandil ñu lépp loo xamante ni moom lañ bëgg ci bis bi suñu borom daat koy jàppandil ci barke sëñ Tuubaa Cheikh Ibra waaw ñun moom waaye nag sant nañ bu baax a baax sant nañ bu baax a baax ba jëruñ Alioum bu waxee jëruñ Lamine wax daanaka amuñu leneen luñ ciy teg ndax ñooñu ñoom ñooy sunuy jëruñ kon sant nañ bu baax gënuñ leen bu baax jaajëfal jërë ngeen jëf. waaw jëruñ dañu bëgg wax ci jëmm ji ndax jëmm ji dafa baax waaw daa mbaax ba wër àdduna ndax li muy def nii maanaam amu amulu ko sens interdit daaru salaam da nga ko fay fekk daaru xëfër da ko fay fekk nga dem duyooli da nga ko fay fekk nga dem ndindi da nga ko fay fekk waaw te lépp nag waralu ko ngir maanaam jëmmi Sëñ Tuubaa ak Ibra képp moo ko ñor moom day tàmbale ci sëñ bi day yem ci sëñ bi te li muy def li muy def nii maanaam maanaam maanaam maanaam jubluwu ci dara lu dul maanaam am ngërëmal sëñ bi kon maanaam kii jar naa ñaanal Baye Fall jar naa encouragé barki Cheikh Ibra ndax tout tànk la ànd ak ay morom mën a mën a def lu ne bàyyi lépp ñëw di dund sëñ Tuubaa ak Cheikh di seeg café sëñ Bamba bii di ko joxe waaw te xam nga café dafa garaaw te sëñ Bamba moo ñu ko andil sëriñ ca kon lii muy def nii du saayar barki Cheikh Ibra ñu ne suñu xol daa fees mënuñu wax ci jëmm ji barki Serigne Touba mais kii lu muy def ci àdduna maanaam maanaam ñun mënuñu koo xam waaye nag jëf jël lu waaye jëf yaay boroom lii nii muy jëf ni boppam la koy jëfal dañuy ñaan ci yàlla ak jëmmi sëñ bi muy fay yàlla na ko borom bi fayal xolom ci jëmmi sëñ Touba ak Cheikh Ibra xasiidati xasiidati

jëlee ci xel mu dal allah ji fallu Mbakke wallu ndeyam di wallu yaayi maamam ndeyam di baayam baay muy di jaayam allah ji fallu Mbakke xalifa tay jële moo Musa Baay bayu allah ji baara bayu Cheikh Mamadou bu sa jàng bayu Cheikh Abdoul Karim def leen ni nu màggal allah ji fallu Mbakke yaa ngi moom du sa baay baay moom suñ la noo jëndal sama daar allah ji fal Mbakke ku la bañ sëriñ Fadilu ku la bañ bu demee ci bàmmeel na gis lu tuuru am na tuuru allah Serigne Fallou Mbacké ku la bañ bu demee fasiraat du jàll ba du am ab safaar Allah ji Fallou Mbacké ku la bañ bu demee fasiraat du jàll ba du am ab safaar Allah ji Fallou Mbacké mooy fal di fal Allah ji Fallou Mbacké moysal bifal laay ku ko noox mu fal la ngay fa ki mooy saahibul kumala awal manaa'ilu daf leen ñu màggal Baay Seexul Kariim mooy Sëriñ Fallu tamaam xam ni ki mooy saa yu dul fa jëlaat moom doon na maaraam yu fi laam ci wàllu guna sonaan bi laam fëj naa yu yaa si mara maamam maamam sëriñ la allah ji falu Mbakke. Amém. Então, Ilana Ifal. al wilaayata alaaji seex al walaay fanaanga mustalifata alaaji seex al walaay war nga kaabatallaay fu doomu soxna mas fanaan dem nga fanaan falam fanaan boo lekk sa cër ko sombu daan amoo morom ba Abdoulaay واسلك بنا نحجر في الوافنا سلما واترد لنا

بنا وبها في العليا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي عبد الله di ko ñaanal maram xalifa di jéggalu bu baax ci gi di ziyaare suñu xarit suñu mbokk suñu sëriñ cheikh na yàlla wéral ko te sàmmoon bu baax day nit koo xam ni yaaxul toolu maamam mu ngi ciy bay li mu mën yal na yàlla gën ko dooleel di gën ko sàmm bu baax lii ngay liggéey ci kooku yëmbal gis nañu ko rafet nañu ko yal na sax ci barke yonent bi di ziar bu baax mboolem kilifa yi fi nekk ci imaam yi yeeg chef de quartier ku mën a doon ñu ngi lay bu baax waaye iya. di ziar sama xarit bu tali talibi sëñ Aboubacar si di ja Pam ja di suñu xarit mooy borom ko nakaare bëre suñu mbër moomu yal na yalla barke ko baax day sax xamna du yag ndax def naa sax mi ngi wis dañu dafa mënta rek ñu jël kaddu waye jox na ngant ngir Babacar waaye rek yu balema waaye jëwriñ day koo xam ni mbokk la ci deret ba noppi nekk mbokk ci tarixa yit mbo nekk mbokk yi ci dëkkuwaay ñu def teraanga boo xam ni dafa rëy ci man lool mooy ñu tantal sama maam Cheikh Ibrahima Fall lamp Baba Mouridine invité ma si dama doon bëgg nga ñëw si doyul ñu jël ay bool yu bari indi ko sama kër ngir terale ma ko loolu nag man la ndax li ngeen liggéey suñu ma Cheikh Ibrahima Fall ngeen koy liggéeyal te maam Cheikh Ibrahima Fall sama maam la kon ñun ngeen koy liggéeyal yal na yàlla barkeel te it lii nekk it sax ci barke yonent bi dama bëgg ndax bi ma dugg si ay ndaw rek laa fekk te ndaw moom la. suñu maam alayhi salaatu lay waxoon ne diine ja xale ya ak mag mu muus kon bu ñëwee ci tànt bi fekk fi ay ndaw ñu toog di liggéeyal Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul liggéey boo xam ne bu ko neexoon toog biir néegam am ko neexoon toog ci fameem kenn duggi bu maa yombee du duggi biir këram waaye xettaluñu moo taxoon coono yëpp dal ko waaye xamoon nañ ni diine dina sampu fii ci Sénégal te bu sampoo xale yi ñoom ñoo koy yor kon bu ñëwee ci tànn fekk fay xale yu ndaw dañuy bu baax a baax yal na yàlla barkeel bu baax barke yonent bi yal na ñëpp am jàmm. dafa am ñaar yoo xam ni yàlla daf ñu ko wax ne ñoom bu yomal xiyaamee dañuy am ndam du dem gàcc mukk kenn du ngeen gën a fës te kenn duñ nit te dañu koo gis ci maam Cheikh Ibrahima Fall ginnaaw bi di gëstoo ay ay mbindam gëstu ci waram tuuti tilka daaru aaxir naj'aluhaa lillaziina laa yuriiduuna ulwan fil ardi wala wala fasaad wal aaqibatu lil muttaqiin suñu borom nee na yawmal qiyaam ñi fay am jàmm ñi fa nekk ci ak dal amuñu benn pression. mu ne mooy ñi nga xam ni bëgguñu ak yëkkatiku maanaam ak rëy bëgguñoo kawe kaweeru bëgguñu kenn gis leen te it duñu yàq te ku xam maam Cheikh Ibra xam ne mosu rëy waaye it mosu la yàq wala d'accord loolu mas la rëy mag tax ma wax ni ma bi ñu ko ubbee néeg kenn la ci jabar sëñ Touba mu nekk soxnaam mu ne li yéem mooy guddi gu jot ma foog ne jëkkër dafa war a dem ca piliyaanam jabaram lalal ko lalam taalal ko cuuraay comme ni ko di defee mu ñëw jëkkër oo jëkkër ji na ko di jaay kay tëdd mu ne contraire bi la doomi sëriñ Touba la maam Cheikh Ibrahima Fall la lal ba mu jekk nag soxna si kay tëdd ba noppi toog ca buntu néeg ba toog ci suuf ba suuba mu ne man man man man man Cheikh Ibra jomb naa doomu Sëñ Tuubaa ji ci kaw may tëdd ci wetam boobu boobu suufee kenn su ko gis amul fenn ci moom rek moo wax ni bu sama sang génnee àddina man naa gën a nekk ci suuf moomu nekk sama kaw loolu kenn kaa ko ci gis àddina bi moo tax léeg wax ni léeg-léeg dañoo war di jël Sëñ Tuubaa di ko jël Sëñ Tuubaa di ko denc ci néeg jël Cheikh Ibrahima Fall exposé ko maanaam dañu war a war a di wane Cheikh Ibrahima Fall kese bàyyi Serigne Touba xam nga lu tax ndax ku daan sa mbër rek dootoo bëre Abab ah, Dia ku daan sa mbër dootoo bëre bu ñu jëlee Cheikh Ibrahima ci kanam waaye maa ngi jégalu baax jël Xaadimu Rasuul denc ko ci biir néeg bu adduna bi yëpp xamoon ni. Cheikh Ibrahima Fall ponkal mi nga xam ni wattu na lépp àgg fépp am xam-xam lool àgg ci boromam lool nga xam ne xàmmeewul àjjana ak safar xam ngeen ni bi Cheikh bi bi Sëriñ waa sonee ci mbir yi ba rëddëb rëddëm la ku ko jéggi dem safar moo njëkk daw jéggi nekk man man man Bamba xàmmeewu ma safar xàmmeewu ma àjjana ma yow rek laa xam xàmmeewu ma bànneex xàmmeewu ma naxar Ibrahima Cheikh Bamba boobu nag waaw nag yow rek laa xam bu nu ko wane woon ci taalibe wane ko ci bëgg ab sëriñam wane ko ci xam-xam wane ko ci guur yàlla xam nga ne li muy nekk taalibe yëpp guur yàlla la moo gën a àgg si yàlla ñëpp ndax benn baat rek la muy laa ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñëpp si posé ko dañ ko war a dégg si posé wane ko bu ñu xamee mooy kan ba maîtriser ko bu ñëwaat fii kuy sëriñam ñu ne sëriñ Tuubaa kon dina xam ne kii ki mu gëm fonkal la waaw Cheikh Ibra moo gëm Sëñ Tuubaa ak moom ni mu toll ci ay may ci maxaama ci kawe ci àgg ci yàlla ñu ne moom taaliba Sëñ Tuubaa la bur woon moom xaarim du feeñ cëw kon dina xam ne ki mu gëm a gëm mbër la moo tax ndeysaan dama leen ñee bu baax ndax ñu ne jën ñu bokki mbir ñun xam nga ñun sange bi mu ñëwee si ñun dafa wax digal waa këram zikkar si góor ñi jigéen ñi ngir di bañ fecc ak tàccoo woyeeg jow di xat jàmm tàmmal nga say gune ñuy xeej yoonu yàlla bay mag néegoo tunoo bàyyi islam bi yow yaa di wan yoon wa su ko wul rek ndeysaan dafa guddi maa ngi bu baax yal na yàlla barkeel sang bi dama bëgg ne bëgg nga ñaanal ma euh, ma nga ñaanal ma ndax suñu euh, euh, suñu diggante ak yow. ma ne nañ ñëw joxaat yi Cheikh Ibra xanaa déggoo leen li wax ci Cheikh Ibra daa wax ni suñ Tuubaa nañ ko benn di wa di wane Cheikh Ibra loolu la wax xaw ma dégg ngeen li ma xaw ay ca maam Cheikh joxe na sang bi ay ca ñëw leen addi Cheikh Ibra Fall na bar tabari yàlla xoolal maa ngi ñaan ku ci dugal saw ñaq bu nee la jëy ci bàmmeel yàlla na la seera fal nangu ñëw leen wax naa ko léegi moom mii sunu sag bi wax yàlla ci diine rek lay dox ñëw leen ñëw leen na barta bari addi ji may laaj maam Cheikh nee na jar na ko Aïcha yun sen babag ak Cheikh Rafal rek la ñam nabar ta bari sen sëñ Cheikh yal na yàlla guddal sa fan san maa ngi jégalu maa ngi jégalu bu baax baax lii nga xam ne ñu ngi koy def ndeysaan Fallou dafa baax Fallou yal na yàlla fayal la yal yàlla dëgëral lu baax Fatou Sarr day ku baax ku yaatu ku nangoo sonn ci diine ji yal yàlla yëkkati la ba nga xamee yàlla boo manqué dara suy Fallou Sarr yal yàlla suturaal la te yokk say xéewal ci barke bi alayhi salaatu xam naa man damay jégalu Diallo ak dama addiya ji man boole sama addiya andi andi

Jadi, jalan falan. jaajëf yàlla na fi borom yàggal lool barkab nee di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ bi nee na mi ngi nuyu ñi ronu baas bi ñëpp nee na gën gaa tedd di nuyoo nee na sëriñ bi nee na mi ngi jiital ci nuyoo bi ak ziar bi nee na sang bii di génn muy sëriñ Seex Galu nee di rakkam di wëll réew nee na mi ngi jiital nuyoo beeg ziar bi ci mom nee di len wax ne len li rek moy diine nee ndax diine rafetal la rek nee li moy makarim al akhlaq nee cheikh mohammed murtada Mourtada liggey ko liggéeykatub Serigne Touba bu mag bobu nee bi nga xamni nee na ki nga xam ne diinay lislaam ji bari na fu mu ko yóbbu ci àdduna neena na waxtaanam nee na daanaka daawul génn ñaari baat yi nee na nañuy sax ci santaane suñ borom yi neena tey moytu tere yi nee na daana ci dolli it nee na wattaxsinu bi abdullahi jamian wala tafarraxoo nee sëriñ bi daana ci dolli loolu nee na loolu mooy jullit yépp nee na nañu moytu buumu ngërëm bi gëm jëm ci suñu boroom te bañ a tàqalikoo nee na sëriñ Murtada loolu la daan wax nee na la sëriñ Seex Galo Thiaw laay feddali léegi nee na dafa mel ni nag nee na fi mu nii nee na njabootug maam Seera Fall nee na rawatina ku ñuy tudd tudd maam Serap Fall nee na lu sa pas-pas yokk woon ak sa taalibe ak sa rafetal sëriñ bi nee na fi mu toll nii gën koo feddaliwaat nee na jot na sëkk. nee na ndaxte li tax mu jot nee na kii fi ne tey nee na nekk sëriñ Touba nee na dafa xam Cheikh Ibrahima Fall bu baax nee na bëgg Cheikh Ibrahima Fall. nee na am fu mu teg maam Serap Fall nee na fi yàgg loolu te wér moom bi mu toogee ci jalbeeg léegi yàggul nee na waaye neena na yëkkati na kaddu ay yooni yoon nee na ko ci maam Serap Fall muy kàdd yoo xam ni nee na kaddu goo ci dégg goo ci dégg rek tey bëggee maam Serap Fall nee na soxol dina sedd. sering bi neena ku yagul rek neena xaru tabaski neena sering Cheikh Jëmb neena yobul na sering bi juroomi téeméeri xar neena sering sëriñ khadi neena yobul ko ñetti téeméeri xar ak juroom ñaar fukk neena sering Cheikh mo ñoom ñep yóbbu nañ neena waye ci wax ja sant gam ci sant ak ngërëm lam ci ngërëm neena dafa wax ni. nee na xolam ak yëg-yëgam li nekk ci moom ci cant ak ngërëm nee na lu jëm ci Cheikh Ibra ak njabootam nee na làmmañam lott na ci du ko tudd nee na Cheikh Mouhamadou Mountakha moom wax loolu nee na mu dellu wax ni nee na dafa mel ni Cheikh Ibra moom nee na fa jullit yàlla yëpp yam fay nga fa mu yam nee na foofu la mbirum Cheikh Ibra tàmbalee nee na jëm kaw nee kon nee na mi ngi leen di leeral ni yéen ñi nga xam ni yéen a ngi nab nabi ci njabo ci Cheikh Ibrahima Fall nee na ku koy tuddoo nee na war ngaa dollee góorgóorlu bu baax nee na dolloo góorgóorlu bu baax nee na ndaxte kat Baye Fall moom ku ko doon te muy dëgg te mu wër ci yow ba wala yamal xiyaam Cheikh Ibrahima dina la tinu Sëriñ Bamba dina la tinu te nee na ñoom ñaar ku mu tinu ci kanam suñu borom nee doo fa gis leen njàqare nee kon nag liy wax ji doon dëgg-dëgg Baye Fall Baye Fall bu nu gërëm nee na loolu nee mat naa bàyyi xel bu baax nee na mat naa bàyyi xel bu baax. nee na ñu xam ni Cheikh Ibra moom ku ko yaakaar yaakaar njabootam amuloo dara nee na ñu am lépp sëriñ Touba moom ak njabootug Serigne tubaa nee na kon kuy sóobu ci mbirum maam Serafal nee na loolu doo ko bu baax mu ne ci yow nee na Cheikh Ibra moom mooy ku amul dara nee na fab léppam jëbbal ko Serigne tubaa nee mu gënal ko jëmmam. gënal ko njabootam gënal ko alalam nee na loolu la sëriñ bi noonu dina ko ci soññee bu baax a baax faal nee na nan doon la góorgóorlu bu baax bu baax a baax a baax nee na sëriñ bi wax na ko léegi nee na ndaw moom wax nañ ni suñ borom bu dee gën a bëgg nee na ndaw luy jaamu yàlla moo gën a gaaw ci bëggloo yàlla suñ borom nee na ak ndaw loo xam ne daa jël tànkam teg ko ci siraatal mustaqim nee na bu dee safaan ba dina am nee na mooy mag muy mooy moo ko gën a naqari moom suñu borom bu dee dina am nee na loolu day wone ni rek ndaw moom dina toll foo xam ne di dëgmal wut ci ko day bari waaye ndaw loolee moom bu ko yàlla dimbalee ba mu dëgmal Serigne Touba. wala mu tëmbal ko sëñ Tuubaa defar nee na ndaw loolee nee na war naa dollee góorgóorlu bu baax nee na ndaw loolu war naa farlu bu baax nee nee na ba moo ñooñ mu dëgmal nee na lu rot ci ñoom nee na mu jëm ko ca bu baax a baax nee na sëriñ bi am na lu mu wax léegi ci Cheikh Ibrahima Fall nee na nañ ko jàngale nee na maam El Hadj Malick daa waxoon ni. nee na daa waxoon ni Serigne Touba ak màggam ak jege suñu borom kenn mënu koo takk. nee na ndax li ko li ko ko xamal mooy nee na Serigne Mbacke Bousso ragal yàllaam ak jaamu yàllaam ak xam-xamam. nee na ku Serigne Mbacke Bousso ñëw ba ci yow nee na sukk ñaari buté oomam. nee na ni la aslamtu nafsi Alaaji Malick nee na kooku yëm na ko nee na moom exemple boobu nee na la joxe ci Serigne Touba Serigne Touba moom kenn xamul lu mu doon waaye ñi ko waroon ñëpp ay kàngam lañ ñu yàlla dimbali. nee na sëriñ Mbacke Bousso Serigne Dame Abdourahmane Lo nee na Serigne Maj Samb Diop Sarr. Cheikh Issa Dieng sëñ Daaru Assane Ndiaye nee na ak ñoom ñépp boroomi cër yu mag lañ waaye nee na Serigne Touba moo doon jëmm joo xam ne nee na xamul ku ko jegewul de waaye wax nañ ni day ku bokk ak moom koppaaruk suba ak koppaaru ngoon ak koo manti doon di nga xam ne jëmm ji yamul kenn. nee na loolu moom yàlla def na ko ci Serigne Touba. nee ku yëndoo moom ba ngoon ala kulli al di nga nangu. nee xam ni kii la suñu borom samp ci àdduna moo fi wutu nan leen doolee góorgóorlu rek nee na kenn ku nekk si ñun sa bunt ci yonent bi na nga ko fonk te jàpp ko te rafetal ko. nee na lépp lu daataan ci moom nee na mu rot na ndaxte kat lépp ay ngir la rek waaye fan yi daje mooy pëccum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee kon yal na nu yàlla dimbali nee na ba fu waay sof lañ fa santaane nga nekk ca tënku ca nee na ndaxte kat jullit bu yàlla gërëm ñun ñëpp moom la ñaan nee te mag ñi lim fi samp bàyyi ko fi ku ci jaar di nga doon jullit bi yàlla gërëm nee na jërëjëf kon fal yàlla nga fi yàgg lool te wér ci dooley sa maam maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo ngi la koy ñaanal bu nu wéeteeg bu nu wettalikoo bu nu toogee ñun ñëpp rek ñoo ngi lay ñaanal nga gën fee yàgg ndax tamit lii ngay wax lépp mi ngi ci yow barke Serigne Touba waaw waaw na fi yàgg lool fal ti wér barke Cheikh ibrahima waaw kontaan naa ci ne sëriñ bi moom. barki maam Cheikh Ibrahima Fall ma dàq ma sant yi ki la koy bëggee. dëgg la ñu dimbali. dëgg la Fall. Fall fekk nga ñu fu ñu ne. dëgg la fekk nga ñu fu ne. Fall li ma waxoon Darou Khafour laay waxaat fii. est ce que yaay suñu Ablaye. est ce que waa suñu Ablaye mooy suñu maam Cheikh. est ce que kenn du yow. fal yaa ko rek fal yaa ñu dimbali fal yaa ñu jàppale waaw महावन्या